assalamu aleykum bandiraɓe julɓe min calminimon min juurimon min ñaguimon duwaw min ñaguimon yafuya eɗen ñaago allah teddu towɗo nde allah jaɓanten ko mbatten eh, nde allah jaɓanten ko mbatten ko wasa yeɓade to to banggue allah so allah hoddiri saabu juureteɗo o ina handi hen ceerno adama gaye sen beelama mbiyen ko arifu billahi komin kalata e makko ko arifu billahi dalil men ceermal bohar kane nde min timminti itmame en tafsir ɓurana o hewani arde tawtore e tafsir o itmam o kono kanko minen itmam men o ari tawtara nde min jooɗi nde o adi jirgade fof o wi ko manil arifu manil arifu durogal ɓuuri ɓuuri ujunere neɗɗo hay goto jabaki o wi samba aliou samba aliou on ko almudo makko on nooti o wima manil arifu manil arifu o wiimo manil mouradu anhu sarif ila mouradillahi fa hawal arifu manil mouradu anhu sarif ila mouradillahi fa hawal arifu te julɓe fof ina gandi hay goto ɗiɗo jeddodirta e ceerno adama ala muuyani sowona allah muuyi wadde eɗen gandi ko arifu billahi ɗum ɗo tan min kalduma ko wona ɗum ko ceerno adama sohlani neɗɗo hay goto sowona nafata ɗum kala ɗo ari e ɗanngal ko ɗannotono kala ɗo yeehi ɗo yetti sa salminde mo a sa wima ala mi wayraji neldude o wima yo addoy taloŋaji ma manda mi yiya sa addi a hiisi sa addani ko gaddunoɗa ko o ƴetta goɗɗum o watta hen o nelda jinnaɓe ma ɗum ɗo koye jikkuji ma ko yeeya ceerno adama ko jankiniɗo hay goto anda ceerno makko kala mo yi ko ceernam ko wonata kala mo o ari gabo mawɗo goto ummi mali ari wone wiide oɗo ko almudo babam o wimi alaji min tan makko e allah o wi o haal tan kono o annda ko haali ko mi janngani e bam makko mi yoyitaki e bam makko kono min mbeɗa jogino adam kala ɗo jeeya mi hurjo mi tawi ɗon ceernajo mawɗo mami dawna ɗum alarba mi yi noon wuuro mabɓe mi tawni ba makko alarba kono wona ba makko woni ceernam ɗum ɗo ko yankinare makko ceermat bocar ono wi fa basru sohratin idfinan falaha fi buqati l humul il wa gayru madfunin falan tarahu yanburu bal ɗayru hawa hawahu e, so ɗum ceerno adama so yewti ko garɗen ɗo e dow mum ko sahibu boustane o wi anna lillahi madinatun tahta arsi mabniyun min miski asfar wa ala babil madinati malakun yunadi kulla yawmin ala man aliman faqad zara jamiu an biyayi wa man zara an biyayi faqad zarani wa man zarani fatul janna ɗum noon ko garɗen ɗo ko jurɗen ko gando jurɗen ɗo ko gando kala ko sifete e e ko ina sife e makko wona wonde o e ɓi ceerno adama nde saabu la yasluhu lil issadi illa man kana ala ilmin yahdi bihil ibad wida marida muridahu bi subatin dawahu awta hayyara fi masalati masail fiki aftahu ma a qana'atin ma a qana'atin yughnihi ani ani nasi ida lam yakun li seyhu xamsu fawaidin wa illa fa dajjalun yaquudu ila aljahli xabirum bi ahkami sariyati arifun wa yabhasu fi bari lhaqiqati an asli yubadiru lil wurradi bil bisri wal qira wa yahdaw lil miskini fil qawli fiili hada huwa seyhu lmuazzamu qadruhu jadirun bi tamyise lharami min alhilli ɗeɗo gueɗe so ngala e ceerno modo adama ganden o wona ceerno tawi arene makko e tawami makko ganden ko ceerno ɗum noon min kam min jii ko yo allah rokkumo no woniri ɗum ene ko darten ko yo allah rokku en dañde ɗum e min jiiɗa juunade e haala min daɓɓiɗinoɗo tan wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatu minen minen noon komin almuɓe e galle he min min kono nde allah hoddiri fof ziyara yonti min jiiɗi ko arde min tawtere min jiiɗa nantude nanɗumi e radio tan min jiiɗi tawtorede ɗum noon oɗon jarlo oɗon jaafo allah rokki en wattanimo wuuri onon e radio o yo allah yo allah yoɓon moƴƴere yo allah yoɓo moƴƴere yo allah yoɓo moƴƴere wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa waaw waaw kii kii doon wax moom tamit euh, sët la ci Thierno Adama maanaa ci njiit yi la bokk ñi nga xam ni ñoo bokk ci njiiti yi ziyaara bi euh, moom tamit nit gu baax la nit gu am pastef la ku am taxawaay la ci dëkk bi ku am taxawaay la ci kër gi ku am taxawaay la ci sëñ bi moom daanaka France la nekk at mu ne ziyaara bi moo ko yëkkati day ñëw teewe ziyaara bi lii mu doon wax ci sëriñ bi nag nee na Thierno Adama euh, nit la goo xam ni boroom may la nit la goo xam ni boroom teraanga la yàlla defal na ko loo xam ni loo xam ni kenn mënut du naatable ni Thierno Adama nitu yàlla la maanaam waliyu la bu sell bu laab. Euh, li mu gis ci Thierno Adama yëpp daanaka màndarga yëpp mu ngi ci doomam ji di xalifa bi di Thierno Mamadou Adama Guèye nee daal. Euh, Thierno Mor Adama Gueye photocopie la rek ci Thierno Adama Gueye daal yàgg naa ko wax ci ci ci ay média maanaam boo gisee Thierno Mor Adama Gueye rek gis nga Adama gay maanaam benn lan ci ci ci jëmm ji ci jëf yi ci jikko ji yëpp daanaka yàlla defal na ko lépp lu sëñ bi doon doxee daal dara manqué wu ci dara mën naa wax ni da koo yokk waaw kon nag euh, moom tamit euh, maanaam waxam rafet na waxam sell na te boroom xam-xam la ku ñu ràññee la ci wàllu xam-xam. macha allah du tukki jeyuma ko dëgg laay wax ñëpp a xàmmee nañ ko ci mbool yi xàmmee nañ ko ci France la nekk foofu mboolo la fa jiite maanaam dafa jàngalee dafa tette dafa yeete macha allah taxawaayam rafet na la nag euh, suñu wax du gudd dañuy bàyyi ñu nga xam ne ñi ñooy njaboote waa kër gi yëpp ñu ñëpp ñu ngi ñu ñu ku nekk am loo ci sànni kii doomu la ci Thierno Mamadou Adama Gueye kii tamit doom la ci Thierno Mamadou Adama gay kii jarbaat la ci nga moom laa ñi ngi des ñi yëpp ay mbokk liñ kii tam doomam la ñu ñëpp maanaam macha allah famille bi ñoo toog nii ku nekk am nga loo ci bëgg wax fekkee temps bi mayee na ko ku nekk am loo ci sànni. asalaamaaleykum gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yenante bi ziyaare suñu sëriñ Cheikh na Ahmed Tijaan radiyallahu taala ak soppi sëriñ bi di Cheikh Oumar Foutiyou Tall ndax ti fa tapaari baarikallaahu samay way jur yi wax ni ba pare sax waruma ci woon sax teg baat kati kontaan rek. ati Thierno Adama moom fii la judde ci ñàng fii la màggee fii la jàng ba ëtt alquran papam moo ko yóbbu ci ku ñuy wax Thierno Thierno Demba kooku moo ko bindal baa bu fa jógee ñu yóbbu ku ñuy wax Thierno Baba Niass ci kooku la jàngee alquran jàng atee yëpp lu si war yëpp fa tabarakallahu yàlla def Thierno Adama mu déggoog waa ñàng it yëpp ñëpp bëgg ko wa lépp lu mu xewalee dëkk bi yëpp dañuy jog taxaw jàppasi ba aaju yëpp faju kon nag ñu ngi sant yàlla di sant waa dëkk bi ñu ngi sant yàlla di sant waa dëkk bi fa tabaarakallaahu Ceerno Adama gay maamam Salif moo àndoon ak Seex Umaral Fuuti Taal buñ demee nag ba war a dugg Mali euh, Seex Umaral Fuuti Taal ni ko kaay nga ne wàññeeku waat nga dellu dëkk bu ñuy wax ñàng edi boo fa demee nag danga am doom bu ñuy wax usmaan gay Ousmane Gaye bi dana jur ku ñuy wax Adama Adama bu ñëwee nag moom tamit dana fi fekk ay kilifa yi diini yu mag ci ñàng bu ñëwee dana ànd ak ñoom déggoog ñoom mu nekk nag yi ni mu yeer nekk ci biir Fuuta gi ko aussi ñu ngi si sant yàlla bu baax bëgguñu sax guddulu ndax suñu wayjur bi wax na yépp waaw ndaxte kii Thierno Mama Lamine suñu xaritu waajur la ku baax la ku tedd la kat yi fa tabarakallahu ci loxoom nañu yaroo sant nañu yàlla bu baax bu baax bu baax daal ki tamit aussi suñu najaay la Aliou jàlloo ñu fi nekk ñëpp waa njaboot gi ñoo fi nekk taalibe kër gi ak ñoo xamante ni sax wékkuwuñu sax ci kër gi soppee rek bugg kër gi bugg na Adama ngay moo leen fi indi ku ne am na ci koo wékku aussi ñu ngi sant yàlla bu baax yéen tamit yan na leen yàlla jëmee kanam télé bi yal na ko yàlla jëmee kanam mu yàlla boolee ko ci yu gën a mag ci biir senegal kontaanin bu baax Cheikh Amadou ceerno allah julde ne nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam salminde bandiraɓe julɓe hettotoɓe oɗo télé fof min juurimaɓe min ñaaguimaɓe duwa o renndini en ɗo ko fittandu jeyaɗo allah tampannoɗo allah tampani nelaaɗo tampani cheikh tampani cheikh umarul fuuti tampani moƴƴuɓe fof ceerno alaji mallamin ni hewno wiide sa rokkima konngol caggal no ceerno mamuɗo en kaali o wiya so tawi neɗɗo salguinima ha salgui mum timmi sa tamima holko tamamuy o nafata ɗon wadde noon minen caggal ne jignaɓe e seeram ɓe e kaali so tawi min kaali min ganda haala min ko nafata toon kono noon haadi so yamirore yamirama tan e kaalen ceerno adama noon ko joguinoɗo jikku mo gandanɗa hoore ma Eh, ko adi fof e ceeraɗo ma allah laɓɓinno ɓernde makko kadi ha ko gurdam makko fof kadi ko ɗum o duwotono eh, hay hunde alano ɓernde makko sowona kulol allah kala jeyal allah kadi mo ceero adama yiino yilan ɗum ko moƴƴere ala fof mo ceero adama ɗawanno kala ko ceero adama dañi dañantuno ko yumɓe ceero adama meeɗa dañande hoore mum ceero adama meeɗa jogade compte banque compte banque makko miskineɓe wonno taniraɓe nela taniraɓe cheikh nehde almuɓe nehde julɓe ittude yumɓe kongu ko ɗum tan wonno gueɗal makko ko ɗum o yaɓɓanno ko ɗum o yahatno alhamdulillahi rabbil alamina allah kadi walli en e, mo lomtini o halifa makko timmuɗo o kala ko ceero adama yahatno allah ne hoddiranimo ɗum omo yaha ɗum omo yaha ko ceero adama yahano wadde noon eɗen jetta allah no feewi e, sababu noon télé garɗo ɗo yete joom sababu en ɓe allah jutnan ɓe darde enen kadi almuɓe wonɓe ɗo ɓe e kala yo allah rokku ɗum ko juuti rokka ɗum barke zeyare o rokka ɗum barke ceerare me barke seere mum jafuɗon salamu aleykum wa rahmatullahi rek ñu tënk fii kaddu yi ba ci kanam incha allah xam naa ni bëccëg bi xaw na sore kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal télévision bi yàlla yóbbu ko ci kanam ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ca Abu Abou Diop ñu ngi lay sant di la gërëm Umar Diop kon nag xanaa ci kanam incha allah dinañ la boole ñoo xam ni ñoo yore organisation bi yëpp lépp loo bëgg a jël incha allah nga jàllale ko ci télévision bi nu mu gën a leeree yëpp dana dina baax incha allah ok kon nag ñu ngi lay sant di nga salaamaaleykum wa rahmatulah